Cheikh Ahmadou Tidiane waaw mayam ya woon na ca réew ya qutbul wujudi fa Cheikh yàlla ko may aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant sunu boroom tabaraka wa taala moom mi ñu baaxe lii ba ñu mën a toog tey fii di ci waxtaan muy loo xam ni yàllaa ko baaxe Chérif Ibrahima Aïdara muy télévision boo xam ni ci la ñuy mën a jaarale sunu kàddu nit ñi di ñu gis ñu bëgg ci jaarale tey nag communication bu ñu bëgg a def di woote ñu di ko wax conférence bii nag ñu ngi ko tuddee maam Abdoul Aziz Sy radiallahu taala anhu ibnu maam si Haji Malick Sy di xamal ñi nga xam ni ñi ngi ñuy déglu dañ koy def lillahi wa li rasulihi ndax loolu la ñuy jàng ci maam Abdoul Aziz Chérif Ibrahima Aydara di doom ci maam Abdoul Aziz man mi toog fii tey woote ko jël lépp teg ko ci loxo Chérif Ibrahima Aïdara di doom ci maam Abdoul Aziz ci baay si ñaan yàlla lépp luñ ci def yàlla na yàlla yi kese ñu ngi woo nag képp koo xam ni soppe maam Abdou nga wala ngay soppe nitul diin lislaam ñu ngi la ci woo nga ñëw teewe ko ñi luñ luñ fi def yiw yàlla séddale ko képp ku ñëw ak Sénégal yëpp ak Afrique yëpp ak àddina si xam nañ ni lii ñuy def bëgg nañ ko jaarale ci télévision bi ci CDTV ku ko bëgg a xool incha allahu rabbi dimanche le 29 gannaaw 17 heures ba heure bu muy jeex ku ko bëgg gis mën nga ko xool en direct soo ko xoolee en direct nga gis li ci def ñuy ñaan yàlla yit képp ku ci am xalaat loo ci gis mu ëpp nga woo ñu wax ñu ko ñu wàññi ko loo ci gis mu manqué nga woo ñu wax ñu ko ñu yokk ko bu benn yoonee ñi ngi koy def nag ci ndigalu xalif général Tidiane muy sëriñ mbay Sy Mansour waaye ñi ngi jaaral nag sunu wut ndigal ci Serigne mbay ci Alhaji Malick Sy Maodo ibnu Abdoul Aziz si Dabakh su ko defee ñëpp dugg nañu lii ñuy woote nag woowuñu tijaan woowuñu murit woowuñu xaadir woowuñu laayeen ku wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yow la ñuy woo ñi ñu liñ ci bëgg nag mooy ñun ñu xam ni xale yi dañu bëgg ñëpp ànd booloo nekk benn dànk su ko defee lislaam bi am doole li ñu bëgg ci lislaam bi ñu mun ko ñu ngi ñaan yàlla nag képp koo xam ne am nga yaakaar bu rafet boo ci bëgg a def bu la neexee nga def ko ci ku wootee ci numéro bi yi nga xam ni mooy numéro télévision bi soo bëggee jokkook man di nga jokkook man maa ngi woo famille Alioune Diaw yëpp gannaaw bu ñu wooyee famille Mame Si Hadj Malick yëpp ndax ñoom ñooy suñu wasila di woo famille waa Taïba Niang di woo bépp xame bu nekk ci senegal di woo famille may si diggéen maram Ngoone Thiam di sama famille yaay di woo famille Alioune jaw di waa Jolof ca Siin di woo képp koo xam ne kii daal dégg nga woote bi ñu ngi lay woo di ñaan yàlla nga ñaanal ñu soo mënee ñëw soo mënee ñëw moo ñu gënal soo ñëwul foo toog nga defal ñu fatiha asalaatul fatiha ba liñ ci def yàlla buñ ci gis suñu bopp liñ ciy def yàlla yàllay kese yiw yal na ko yàlla séddale ci biir senegal yëpp yal na ko yàlla séddale ci biir Afrique yëpp yal na ko yàlla séddale ci àddina si yëpp ndax gëm nañu yàlla gëm goo xam ni nangu nañu li yàlla wax ko ñaan ñaan ñaan bu nekk ci yow li nga ñaan yàlla yàlla dina la ko may kon nag ñaan yàlla mi nga xam ne moo yore lépp boo koy ñaan dangay ngay ñaan pour ñëpp ñi ngi ñaan jàmm yàlla dolli ko fi am na fii yàlla na ko fi yàlla dolli ñi ngi ñaanal Chérif Ibrahima Aïdara taxawaay bi mu taxaw ci biir diine lislaam yal yàlla yokk ko yaatal ko te moom ci boppam yàlla wéral ko yàlla yeggale ko fi mu bëgg yegg ñu ngi dolli ñaan tamit si Hadj Malick si ibnu Abdul Aziz si di ko wax Maodo yàlla may ko wér ak fan bu gudd li ñuy def nag ku ko dégg rek communication bi xamal ni mooy sa invitation ñu ñaan nag lu mbooloo mi bari bari moo ñu gënal waaye nu mu néew néew it tey yàlla kese ñu wax ci alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi programme bi mooy tàkkusaanu maam Abdoul Aziz Sy ibnu maam si aj Malick lañ ko tuddee lii programme bi nag ni ñu ko defee woon daaw noonu lañ koy defee ren mooy dañuy seet ci dund maam Abdou yi nga xam ni moo gën a dëppoog jamono bii nga xam ni gis nañ ni mu ngi commencé yëngatu ci ñaari boor yëpp ñu waxtaane dund maam Abdou ndax maam Abdou diine mbokk dëkkandoo ak njaboot ñoo doon problème am ci la dund dundam gi yëpp programme bi yëpp liñ ci waxtaane mooy daal ci tubaab mooy la vie de maam Abdoul Aziz Sy ci dundam bi ci tegu mooy ñu ngi koy defee fii ci Gueule Tapée ci rue 67 angle 52 boo ñëwee kër maam Abdoul Aziz Dabakh Malick ci abunu Blaise Diagne soo laajee kër Mouhamadul Mansour Diaw dinañ la ko tegtal et li ci tegu mooy képp ku ko bëgg a seetaan nga seetaan ko ci CD TV ci Chérif Dabakh boo TV boo ko xoolee ci internet bi di nga ko gis ci YouTube bi wala foo ko xool ci internet bi rek di nga am possibilité seetaan ko en direct ñuy ñaan nag yéen waa États-Unis ñoom Ndeye Fatou Mbow yéen waa Italie ñoom Alsaan Mbow yéen waa Danemark yow Babacar sek yéen waa Espagne Moussa euh, euh, taal yéen waa Afrique fu ngeen mën a nekk daal ku dugg ci site bi di nga gis lii te ñu ngi ñaan ñaan la yëpp gis ko ndax dañu bëgg mu gën a yaatu bu déwénee bu gën a yaatu bu déwénee comme ni ko Chérif waxee ba ñu yóbbu ko ci stade ba di ñaan yàlla nañ képp ku dégg suñu communication bi nga ñaanal ñu ci ba lii ñu ciy def ñu ñu def ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.